Ousmane Sonko meek jafe-jafe yi nga xam ne naroon na ko jural réewum Sénégal jamono ji kilifa dina yi nekk ci réew mi ñoo koy lijjanti Serigne Abdou Aziz Dabakh yàgg naa lijjanti ay jafe-jafe ci réew mi relation bi nga xam ne Léopold Sédar Senghor amoon na ko ak Serigne Fallou Mbacké ràññee ko woon lool waaye nag relation bi nga xam ne Abdou Diouf amoon na ko ak Serigne Abdou Lahat kazalika Abdoulaye Wade ak Serigne Saliou ba ci Macky Sall journal bi di réew mi quotidien ne en tout cas li am ba de Sall bi ne na nañoo lijjanti ay jafe ci réew mi yàgg nañoo lijjanti ay crise waaye nag askanu Sénégal ñoo bindoo noo xam ne léeg-léeg bu kilifa diine yi di wax duñu leen dégloo yéen a kaay gi di la nee na apaisement jamono ji ci réewum Sénégal la kilifa diine yi bëgg te teewul ñoo ngi surveiller ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall ndax am na lu ñu ko ñaan yéen a gi di la témoin nee na en tout cas lu jëm ci réew mi ànd ko dal Serigne Mountakha Khalife général des Mourides maanaam def na ci liggéey bu am solo taxawaay bi nga xam ne amee na ko ci réew mi loxo si poos yéen a kaay gi nee na bi moo ci gaaw jafe-jafe yu ab réew mi sëriñ bi dina ci wax dina ci génn alal dugal ca yéen kaay gi du Sud Quotidien nee na lu jëm ci jàmmoo ci réew mi maanaam mu nooy journal bi nee na Macky Sall double jeu lay joué yéen kaay gi di Les Échos nee na ajuma ji nga xam ne moom la ñu génn société civile bi demoon nañ gisante ak président Macky Sall waaye nag Macky Sall wax na leen ay dëggama nee na leen nag en tant que président de la République en tant que njiitum réew mënuñu ma exiger maanaam di ma forcer lenn ñu toog waxtaana ba trouver solution moom Macky Sall la mu xamal société civile est-ce que mos ngeen dégg fenn ma wax fa ne dafay def troisième mandat nee na leen nag Idrissa Seck muy man di Abdoulaye Wade yoon woolu na leen wuy ci nañ kon Ousmane Sonko bu ko yoon woowee dafa war a wuy ci moom ji turóomi di Macky Sall ca ndajee moome ba tey nee na lu jëm ci mbiri Karim Wade Khalifa Sall maanaam ubbi na ay buntam ngir waxtaane ko moom ji mi di Macky Sall nee na nag mënuñu nag fukki weer wala fukki weer ak ñaar yu nekk ñu amal ay élection ci réewum Sénégal loolee mënul ci réew mi li nekk ci réew mi quotidien mooy réew yu bari ci àdduna bi bàyyi nañ vaccin bii nga xam ne moom lañ doon jëfandikoo di Sénégal journal bi nee na la ko waral mooy ay problème circulation sanguine yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na réew mi di France bàyyi na vaccin bi Italie bàyyi na vaccin bi Allemagne bàyyi na vaccin bi yéen a gi di Dakar Times mu xëy di ñu xibaara naan ñu vaccin bi di AstraZeneca jamono ji xaajale na adduna bi yéen a gi di la Soleil ñu xëy fekk fa professeur Tandakha Dièye nee na nag fii ci Sénégal vaccin bii di AstraZeneca dañu koy continuer yéen a kaay gi de la Tribune na nag est-ce que nag daal di koy suspendre maanaam daal di koy teg ci suufa yéen a kaay gii délibération nee na kilifa yi nekk ci réewum Sénégal ñoom dañoo waxoon ne vaccin bi ko teg suuf nag waaye nag soo muy tuulee maanaam dogal boobee nga xam ne jëloon nañu ko danañu ci deltu ginnaawa yéen a kaay gii de la sa nee na en tout ba di AstraZeneca France bàyyi na ko Allemagne bàyyi na ko Italie bàyyi na ko Espagne bàyyi na ko Portugal bàyyi na ko Pays-Bas bàyyi na ko Danemark bàyyi na ko ba léegi maanaam ma ngi ko ngar daajoo yéen a kaay gii di mi quotidien nee na coronavirus ba léegi ngi def lu dara jëlul ci réew mi ndax ni ki démb lu toll ci fukk ak juróom ñàkk nañu seen bakkan ba tey ci biir journal bi di réew rëbës la daje waaye nag Thione Seck nit la koo xam ne ku am ngor la nit ku am diine nit ku am jom nit koo xam ne ku murite la yéen a kaay gi di libération xëy duñu xibaar naan ñu chambre de commerce bu ndakaaru lu toll ci deux cent cinquante sept millions moom la fa toje ñi nga xam ne nag ñooy agent yi am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi leen ciy ak ñi nga xam ne ñooy chef de département yi yéenekaay gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu activiste bi di Ousmane Tounkara siiw lool ci diwaanu Amérique teg nañu ko loxo ginnaaw bi ko état bu Sénégal porté plainte lu jëm ci wàllum terrorisme ak wallu menace de mort yéenekaay gi di L'As nee na bëri na ñoo xam ne ñoo ngi ci ay bërëbu liggéeyukaay di dund li nga xam ne mooy harcèlement sexuel am na benn xale bu jigéen boo xam ne nee na moom sax dafa am jëkkër waaye nag cabinet avocat bi nga xam ne fa liggéeyee ci Sénégal avocat bu siiwa siiwa siiw boo xam ne ñëpp xam nañu ko moo ko doon def ay harcèlement sexuel